doon bëre la bàyyi. looy wax. ah looy expliqué. non lan laa expliqué. doo ma wax lan laa expliqué. li mu doon dóor. lu la lan laa expliqué. li mu doon dóor nga wax. léegi lan laa expliqué. <laughs> lan ngay expliqué la lan laa expliqué. li mu doon dóor. lan laay expliqué dóor bi. daa mel ni dóoru Alboury ba léegi bàyyi moom laa gën a xiif nga may wax loolu. arbitre ko waaw te revanche ku dul soxla wuñ ko. waaw fii ba fii ba fii ba. yow dóor doo la woo ci ba léegi. yàlla xam na ne bu dee amateur lam nga. xam nga loolu waa santaane. xam nga ko wala amoo ko. xamoo ko lu wàll lu wa ah kon ah, coppe am nga yow coppe am nga loo coppe am nga looloo tax xamoo ko. xaw ma coppe am nga xaw ma dóor ko sooy yow yow bu ñuy éliminer du dañ koy taf. ama seen moo dóor dóor tafuñ ko jëniñ ci foroote jëniñ ci mant kii prestement ñun sax jëluñ ko prestement mun sax jëluñ ko ci xoolal bu ma fenee yàlla na bu ma àgg prestement mun sax jëluñ ko ci. prestement mun sax bu war na yàlla jëluñ ko ci. jëluñ ci foroo de jëluñ ci mantalaa tam. yow fi mu toll nii ah? lan nga bëgg. alburi alburi. a waaw. a ci làmb laa nekk ci làmb laa yaa ngi dégg maa teele maa teele sama bopp ci làmb ka mu seytaani soxla mu ma la bëgguma jam ci sama kanam jam fu mu xewul bu mu fu gont waaw ci sama côté dégg nga lu ma la wax commune taxuma fee ñëw fii ba fii ba fee bi dama koy toppee comprendre nga dama koy topp mu fay ma wala ma dab ko rek dinaa leen wooyee ñaañu waaw